Alors, sur le parrainage, nous n'avons jamais, en situation, nous avons jamais été en situation de doute. Nous avons fait notre parrainage dans les règles de l'art. Il est arrivé que le Conseil constitutionnel, pour Ziguinchor précisément, nous demande de régulariser pour huit parrains, donc huit signatures. Nous avons fait de féliciter la task force élection qui a été dirigée par Asma Bakar. Ils nous ont demandé huit, nous avons déposé 176. C'est-à-dire que nous avons déposé 22 fois plus que ce qu'ils nous ont demandé. En pas, Anna Matassi, xam naa ça doit être zéro virgule zéro zéro zéro quelque chose comme ça de risque ça la garantie une alerte parce que quand le Conseil constitutionnel par mécanisme que personne ne comprend a été en mesure à un candidat je rejette 36 000 pour cause de Peut-être qu'ils auront le cran, pour une fois, de dire à un candidat que j'invalide vos 176 signatures. foofu nag lañu leen di xaar tiituñu ci ragaluñu ci mais on le dit sous forme d'alerte pour que l'opinion nationale et internationale puisse être prise. am na nag foo xam ne ñun duñu fa yegg ci chasse aux sorcières maanaam topp fekk loi bu ñu créé woon 1981 kenn mosu ko laal. nga dem génne ko pour régler juste des problèmes avec des adversaires politiques suñu dignité républicaine mayuñu loolu Babacar Fall recalé au deuxième tour pour ñun waa réew mi ak le candidat Idrissa le problème du parrainage ne s'est jamais posé et ne se pose pas tey ci ngoon suñu mandataire dem na compléter li nga xam ne moom la ko conseil constitutionnel laajoon amuñu benn doute ci question boobu waaye nag dinañ alerter dinañ alerte parce que huit lañ ñu laaj huit xaw ma neuf huit huit lañ ñu laaj ñu déposé 176 voilà voilà donc ñu ngi déposé 176 donc liñ ñu laaj déposé nañ ko vingt deux fois ñaar fukki yoon ak ñaar kon foofu mënul am problème mais nag dañuy alerter parce que ku mën a taxaw ne benn candidat am nga 36000 doublons invalidés peut-être que mën nga taxaw ne say 176 yëpp dama koy invalider foofu nag lañ leen di xaar def nañ lañu war a def liggéey bu set wecc liggéey bu jaar yoon. may profité di félicité task force élection bi nga xam ne ak Babacar moo ko jiite ñu def liggéey bu rafet macha allah amuñu benn doute ci question boobu ñun li ñu gëm mooy jàkkaarloo président Idrissa Seck ak président Macky Sall bu soobu yàlla dina am